àndaat ak yéen ci suñu dars tasawuf euh, ba tey ñu nekk ci maratibul awliya suñ dars bi paase nag ñu jëloon ñi ñuy tuddee almalamitiya ñoom ñu waxoon ni ñooy ñi nga xam ne duñ feeñalal mbindeef yi dara ci seeni jëf maanaam duñ gis tal duñ feeñal dara luy feeñ ci seeni jëf wala mbóot mu ñuy feeñal wala yu demee noonu loolu nag di tegtale seen ak kawe martaba ak seen ak kawe daraja bal sax dañuy nëbb mbóot mi leen yàlla jagleel ak may yi leen yàlla jagleel ak seeni jëf yi ñuy jëf te yàlla rekk tax dañ koy nëbb ngir daaw ngistal waaye tamit ngir mat gi nga xam ne seen ak mos yàlla mat na ko waaye seen ak seedu biñ seedu yàlla kàttan lim àndal eh, ak fiir yi nga xam ne fiir nañ ko ci weer mbuut muy maqaama bu am solo ba sax léeg-léeg mu di leen jural ñuy def naka sudul noonu ngir xiir seen maqaama yooyu te ñooñu bëri nañ ci góor yàlla yi niki noonu jëloon nañ ñi ñuy tuddee ahlul futuwa ñu waxoon ni ñoom ñooy ahlul xubbi wal isaar maada nafs ñi nga xam ne dañoo jël seen lépp delloo ko yàlla bëgg yàlla ba mu jeex bëgg yonantu bi sallallahu alayhi wasallam jeex waaye di xiirtal nit ñi ci bëgg yàlla ak yonantu bi bokkoon nag ci seeni melokaan mooy am muru'a jom nekk jàmbaar waaye di yulli mboolem xeetu baax di ko jëmale ci jaamu yàlla yi niki noonu euh, mboolem xeetu xam-xam di ko jëmale ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala te amuñ ci benn càkkutéef lu dul ngërmande borom bi subhaanahu wa taala mu doonoon dars bu am solo boo xam ne yaataloon nañ ci lu jëm ci wàllu malamisiya ak ñi nga xam ne ñooy ahlul futuwa euh, suñu dars tey nag jëm ci مقام بيني تودي مقام الصالحية موي نيت يالا يوي ني ووي الصالحون بعد بينك رتنا تي القران أيون يون يون بروم بيغي نيتالي تي لامين يون تي يالا يوسف ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا يلا قد آتيتني من الملك جخنغما في سنجور وعلمتني من تأويل الأحاديث قملغما في رب أي جنت فاطر السماوات والأرض يومي قمنا يا بنا سمان تلو أمود تلو منام يا سوس أسمان ميلو بس wal ardi ak suuf anta wali yi yow yaay ci méngoog man kon nag maa ngi lay ñaan tawaffani musliman faatma may jullit wa alxiqni bi saalihin te nga jotali ma maqaam ak ñi nga xam ne ñooy maqaam ak góor yàlla yi yooyu ñuy tuddee as-saalihun niki noonu euh, ci beneen aaya ulaika alladina anama من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ndax jaamu yàlla yi ñetti kuréel leen kuréel goo xam ne ñoom muqtasid kuréel goo xam ne zalimun li nafsi waaye kuréel goo xam ne itamit euh, maanaam ñetti kuréel lañ euh, ku ñetteelu kuréel bi mooy saabiqun bil xayraat kuréel googu nag nga xam ne saabiqun fil xayraat ñooy kuréel gi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa taala dina leen boole ci kuréelu yonantu yi kuréelu siddiqiina yi kuréelu suhadaau yi kuréelu saalihiina yi te ñooñ rek ñoo rafet doon ay àndandoo muy lu am solo yow mi laaj saalix bi mooy kan mooy al aabidu al mutii li awamirillah wal mujtanib li nawahi mooy jaamukatu yàlla bi nga xam ne dafa sax ci topp ndigalal yàlla waaye di moytandiku lépp lu yàlla tere mooy jaamukatu yàlla bi nga xam ne kenn kennal na yàlla uluhiyatoom gi delloo ko ay turam delloo ko ay melam mooy ki nga xam ne jeex na ci yàlla takk ba gisut sax jëf yi muy def waaye lépp daf koy def delloo ko borom bi subhaanahu wa taala muy lu am solo ci biir loolu nag dañ ci mën a jàngat ni e, maqaama bii nga xam ne mooy maqaama alsaalihiya maqaama la bu am solo boo xam ne am na ay jeexital yu bëri yoo xam ne daf koy royaatal ci jaam bi bokk na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam xadisam bu boobu nga xam ne ñu ngi ci muslim muy xadis deux mille deux cent soixante trois mu ngi wax ni ruya rajuli salih juz'un min sitta sittatin wa arbaina juz'an min annubuwa mu ne géntëb ki nga xam ne mooy waay ju baax jooju xaaj la ci ñeen fukki xaaj ak juróom benn yi nga xam ne nubuwatu xaaj na ko kon da gis ni kii nga xam ne mooy arrajulu saalix yàlla may na ko ab may ci benn xaaj ci ñeent fukki xaaj ak juróom benn yooyu nga xam ne moom la nubuwatu am kon loolu lu am solo la bokk na ci jeexital yi muy def ci jaam bi képp koo xam ne yegg na ci maqaama boobu suñ boroom subhaanahu wa taala mooy mingool boppam say mbir kenn ku ci nekk nag ñu ngi méngook say mbir ci kéem sab dayoo ci wilaayatu ak kéem sab dayoo ci ngëm ak kéem sab dayoo ci sag mbaax moo tax mu wax ci téeréem bi ne inna waliya allah alladi nazzala alkitab wa huwa ne ki méngoog man mooy yàlla yàlla mi nga xam ne moo wàcce téere bi te yàlla mooy méngoog ñi nga xam ne ñooy saalihiina yi kon da gis ni képp ku góor góorgóorlu ba yegg ci maqaama bi yow kat yàlla méngoo na la bokk na ci e, yooyu nga xam ne ay jeexital la yu jëm ci saalix bi jagleel yi leen yàlla jagleel aljana yàlla wax na ci xadisul qudsi boo demee ci buxaar yi di nga ko fa fekk abu hurayra moo ko nettali muy xadis quatre mille sept cent quatre-vingt mu ne aadattu li ibadiya salihin ma la aynun ra'at wala uznun samiat wala xatara fi qalbi basar préparel naa sama jaam yu baax yooyu loo xam ne bët musu koo tege nopp musu koo dégg waaye mësta toq ci xolu jaama bi yàlla bi muy lu am solo kon da gis ni kii nga xam ne yàlla dimbali na ko ba mu yegg ci maqaama bi moom aljanaam taxaw na ba pare jaamuwut yàlla ngir àjjana jaamuwut yàlla yi tamit ngir ragal safara waaye dafay jaamu yàlla mahabbatan wa shawqan lillahi tabaraka wa taala bokk na ci yooyu suuf bu fi desee ba tey maanaam yàlla bu fi bàyyee ndëndam gi ba tey li ko sabab mooy ñooñu ñuy tuddee as alquran jàngale na ni wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikr anna al arda yarisuha ibadiya salihin salihin mu ne e, bind nañ ci téere bii di zabour ginnaaw bañ ko tuddee ne suuf suufa si yàlla ci kat ñi koy donn mooy jaama bi yàlla yu baax yi yàlla nee kii donn sama suuf si mooy sama jaam yu baax yi kon lii tegtal bu rëy kawe gi nga xam ne maqaama bi kawe na ko ana yan ñooy melow ñi nga xam ne ñoom ñoo yegg ci maqaama boobu bëri nañ lool munuñ koo lim te munuñ koo takk waaye liñ ci mën a wax mooy bi ci njëkk mooy dañuy topp yàlla ci lépp lum leen digal bàyyi lépp tere loolu mooy melokaanu képp ku baax ñaareel bi mooy dañuy sax ci julli julli guddi yi qiyaamul layl ñoom la alquran di tàgg ne tatajafa junubuhum an ilmadaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimma razaqnaahum yunfiquun dañuy bañ seen lal yi maanaam seen i ndigg duñ tëdd ci seen i lal waaye foo leen fekk guddi gu jot ñu ngi jaamu yàlla jaamu gu ànd ak ragal ak yaakaar te ñun yàlla lépp loo xam ne wërsëgal nañ leen ko rek ñoom dañ ciy wërsëgal jaam yàlla yi euh, bokk na ci melokaan yooyu comme niñ ko waxee sax ci jaamu yàlla guddi waaye tamit ragal yàlla waaye di def tawassul ci moom ngir mucc ragal yàlla gi nag boo déggee alxawfu min allah ak alxashyatu min allah dafa wuute alxawfu mooy ragel yàlla goo xam ne ragal yàlla ak biir la ragal yàlla bu aju ci xol ak jaam bi loolu diggante jaam beeg bi la waaye nag alxasiyatu mooy ragal yàlla bi nga xam ne dafa jëm ci cër yi toroxlu bi cër yi di toroxlul borom bi subhaanahu wa taala saalix bi dafay meloo melokaan boobu waaye nag dafay def tawassul dafay jokku ci borom bi subhaanahu wa taala saa su ne di sàkku ci moom mucc ak nu mu baax baax nag bokk na ci melokaanam yi mooy al tawxid al xaalis tawxidul xaalis mooy tawxid gu set wecc nga kennal yàlla ci jëmmam gi kennal yàlla ci uluhiyatoom gi kennal yàlla ci ahmadiyatoom gi kennal yàlla ci xilaafatoom gi loolu lépp nag tegtalewut yàlla yu bëri tegtalewut séddarikoog borom bi subhaanahu wa yàlla dafa am ay maqaamaak ak ay martaba yoo xam ne ñoom lay wàcce ku bëgg a wekk jëmmi yàlla ji faaw nga wekk ñooñu nga xam ne ñoom ñoo représenté yàlla ci kaw suuf euh, te tawhidul xaalis mooy kennal yàlla ñu bari dañuy faral di wax wéetal yàlla yàlla ku ko wéetal yaa ko wéttali ndax soo koy wéetal da naan ma wéetal yàlla yow ak yàllaa fi nekk moo tax Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax na ci jaayal maani ne fu ñaar am tawxiid amatu fa kon kennal yàlla kennal yàlla jaam bi koy def nag mooy jaam bi nga xam ne léppam jeex na ci jëmmi borom bi subhaanahu wa bokk na ci melow saalix bi mooy bañ di lor nit ñi doo ko gis mukk lor di tukkee ci moom di jëm ci jaamu yàlla yi waaye fu mu toll day sonnee bakkanam day sonnee bakkan nit ñi euh, bokk na ci màndargam kuy gaaw di tuub di dellu ci borom bi subhaanahu wa taala la bokk na ci ay màndargam yi tamit kuy am dox la maanaam ku suufeel boppam la ci kanam bindee fi ku suufeel boppam la ci kanam borom bi tabaaraka wa moo tax yàlla yékkati ko ci maqaama bu kawe boobu bokk na ci ay màndargaam day doon ku lawet day doon ku mën a jéggale day doon ku mën a bale kon euh, jéggale bale ak lewet mooy doon ay melokaan yoo xam ne moom lay meloo bokk na ci ay melokaanam bañ a def lu mooy yàlla bépp xeetu mooy yàlla daf koy sori rawatina lu xaraam niki noonu bokk na ci ay màndargaam beru ci jotaay yi nga xam ne amul benn njëriñ du toog ci jotaay yi nga xam ne moom la ñu tuddee jotaayu aam maanaam jotaay boo xam ne ñëpp fay daje lu waay neex wax amul limite amul frontière saalix bi du toog ci jotaay boobu mukk ndax dafa dégg waxu borom bi subhaanahu wa taala imma yunsi annaka cheytaan fala taqud baada dikra ma al qawmi zalimin bu la seytaane fàttaloowee ba nga toog ci jotaayu caaxaan yooyu ginnaaw ba nga fàttalikoo bul toog a teg nga xam ne ay tooñkat lañ kon saalix bi mën mënta toogaaleeg zalim bi bokk na ci ay melokaanam kër kër gi ñuy kër ci woote ci jëmale ci yàlla bokk na ci ay melokaanam jublu gi ñuy jublu yàlla ci ñaan ak toroxlu moo tax da ngay gis euh, ñun nit yu xeebu yi saa yuñ amee jafe-jafe rek dañuy dellu ci ñiñ yaakaaree mbaax tàllal leen loxo ngir ñu ñaanal ñu borom bi subhaanahu wa taala kon mandargay saalix yi bëri na lool waaye dañ koy tënk foofu ci tënk nag saalix bi buñ bëggee xam mooy dëgg-dëgg kan mooy ñi nga xam ne dañoo xam yàlla ñi nga xam ne xam nañ yàlla yàlla wuññi na seeni mbir nag ci biir mbindeef yi duñ am benn affaire bu spécial maanaam da leen di xool sax jàpp ni benn waya waya la buy dox nii rek fekk ni yàlla dëxëñ na ci moom ci seen mboolem xaal dëxëñ na ci lu dul jeex ci wàllum mbaax mboolem xeetu jaamu yàlla yi dañ ciy taxaw ba sax doo gis farqu yow mi gàtt gis-gis doo gis benn farqu diggante ma ka am bi ànd ak ni nag borom bi subhaanahu wa taala jagleel na ko maqaama bu rëy rëy rëy rëy soo ci bëggee ndollant dangay ngay dellu ci alfutuhaatul makkiya ci buntëb euh, euh, juróom-ñaar fukk ak ñaar ibn arabi alxaatimi yaatal na fa lool wala nga dellu ci karamatu jaameu karamatil awliya ci juzu bu njëkk bi ci fi ñuy nettalee zeynul abidin yaatal na yaatal na fa lu am solo kon suñu daar si tey mi ngi jëmoon ci maqaama bi ñuy tuddee maqaama saalixiya ku toog ci maqaama bi ñu di la woowee ab saalix góor dina ci toog jigéen dina ci toog muy maqaama bu ama am solo xam ne yàlla tagg na leen ci alquranul karim